le propre de toutes les assemblées parlementaires doit s'appliquer en l'espèce. Les députés de askan Askanui ont assisté à la DPG de l'ex-premier ministre Amoudouba sans aucune réserve. Celui-ci avait même été invité par lettre de procéder à sa DPG. Le 2 décembre 2022, l'actuel ministre de l'Éducation, Abdourahmane Diouf, avait écrit de l'enseignement supérieur avait écrit une lettre pour inviter que le Premier ministre puisse venir à l'Assemblée nationale. Donc vous avez fait Dieu, il est juste. Les députés de Yewwi Askan Wi avaient introduit une motion de censure contre l'ex-PM Amadou Ba sur la base curieusement du même règlement intérieur argué de faux. On peut considérer qu'ils ont fait donc usage de faux. Au regard de ce qui précède, Les textes constitutionnels et leurs dérivés doivent toujours s'interpréter dans le sens du renforcement de la démocratie et de la courtoisie républicaine en abhorrant tout esprit de malice et de mauvaise foi. Mais il faut le dire et le constater avec regret que nos collègues de Yewi Askonui sont de très mauvaise foi. C'est la preuve, au regard de ce qui précède, et en considération des arguties des députés de Yewwi Askan Wi il reste évident que ceux-ci sont simplement en mission commandée pour éviter au Premier ministre Ousmane Sonko probablement le dépôt d'une motion de censure par la majorité parlementaire. C'est la preuve d'une absence de courage politique adossée à une stratégie de fuite en avant. Cette débandade honteuse et injustifiée ne sera pas cautionnée par la majorité parlementaire qui exige, et je dis bien nous exigeons, la présence du Premier ministre pour faire sa déclaration de politique générale, sauf à vouloir s'inscrire personnellement dans une logique de défiance des institutions démocratiques comme à ses habitudes d'opposants. Je rappelle que le Premier ministre lui-même Ousmane Sonko en conseil des ministres du 5 juin 2024 vous pouvez lire encore le communiqué il avait dit c'est lui-même qui annonçait je le cite les préparatifs de sa déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale prévue au cours des prochaines semaines c'est lui-même qui l'a dit consigné dans le communiqué du Conseil des ministre du 5 juin vous pouvez vérifier ça Les députés de Sonko n'avaient certainement pas accordé leur violon avec le commanditaire de ce scandaleux point de presse. Parce qu'il faut le dire, ils ont arrêté d'être des députés de la République, ni des députés des populations, mais c'est des députés de Sonko, du Premier ministre. En tout état de cause, les députés du Sénégal que nous sommes, en adéquation avec tous les autres collègues avec qui nous partageons les valeurs démocratiques et républicaines, Prenons l'opinion nationale et internationale à témoin en rappelant solennellement à M. Ousmane Sonko son obligation de respecter son devoir constitutionnel de se présenter courageusement devant les représentants du peuple pour décliner sa déclaration de politique générale. S'il en a, bien sûr, parce qu'on ne sait même pas s'il parce que comme le projet n'existe pas, peut-être il n'y a pas de DPG. Que nous, députés du Sénégal, considérerons toute dérobade comme une forfaiture et en tireront toutes les conséquences de droit. Je dis bien, nous allons en tirer toutes les conséquences de droit. Appelons le président de l'Assemblée nationale à engager sans délai une clarification de la situation avec le pouvoir exécutif afin d'obtenir communication de la date fixée pour la déclaration de politique générale. Utiliseront, je dis bien enfin, utiliseront toutes les ressources légales et constitutionnelles sans aucune faiblesse pour répondre au mépris, par le mépris, la défiance, par, le défiance, par la défiance. Je voudrais terminer par dire que tout à l'heure, Nous avons vu que Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko a fait un texte pour répondre à son député par rapport à une lettre qu'il lui avait adressée. Mais face à ce qui après, par une volonté délibérée, à se soustraire de la règle constitutionnelle de responsabilité du gouvernement devant l'Assemblée nationale, le groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar que je préside à enclencher une réflexion de réforme tendant à supprimer les articles qui permettent au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale, mais aussi l'Assemblée nationale qui va déposer une motion de censure devant le gouvernement. Et ceci va régler définitivement la séparation étanche des pouvoirs. Je vous remercie. Voilà, je, je donne la parole à ma collègue euh, qui va... njooluma ni nga ni nga sa boppam ata ata sa boppam ata xëcc ata xëcc ko Abdou xëcc dellu ko sa boppam voilà dégg nga teel ko mu toog foofu. c'est bon. pousse ma nga ñëw pousse ma nga ñëw. waaw baax na baax c'est sama document bi. asalaamaaleykum euh, jërëjëf monsieur le président du groupe parlementaire honorable président Abdou Mbow euh, gannaaw bi ma nuyoo sama honorable collègue yi di nuyu journaliste yi nga xam ne di rafetlu seen teewaay ndax ñoom dañuy informer opinion nationale ak international sur li nga xam ne moo xew ci assemblée nationale bi sunu collègue yi nga xam ne nag ñoo nekk ci groupe parlementaire Yewwi dañu def sol mbubu boo xam ne du seen mbubu dañoo sol mbubu premier ministre taxaw def point de presse daal di violer mooy li nga xam ne le principe de la séparation des pouvoirs sol mbubu exécutif taxaw di waxal exécutif. te ñoom législatif tey ñu xam ne déclaration de politique générale ci constitution sénégalaise en son article cinquante cinq dafa clair dafa wax ne képp koo xam ne premier ministre du Sénégal nga da war a def li ñuy wooyee déclaration politique général parce que déclaration boobu noonu muy jàkkaarloo boobu ak face à face ak peuple bi ndax boo ne peuple kat mooy ñun député yi dafay tax. ki nga xam ne mooy jëw jëwriñu gouvernement bi dina ñëw waxtaan ak député yi ci li nga xam ne mooy vision bu dee vision am na li nga xam ne mooy ambition bu dee ambition am nañu ko ak li nga xam ne mooy les grandes orientations ndax tey sax mën naa ne mu jëlee exemple BRT ku koy jël di nga xam fan nga jëm di nga xam tamit ban yoon la BRT bi di am te loolu mu ne ko assimiler ak ki nga xam ne mooy premier ministre rôle am tey jii ñu jàpp ne li waa Yewwi yi def les députés de Yewwi lu ñuy ñaawlu la ndax ñoom dañuy invité dañuy woo ki nga xam ne mooy seen premier ministre di ñiitu gouvernement bi mooy mu daw ndax li xew fii Sénégal mosul fee xew ndax benn premier ministre mosul daw ko ak ay député pour wax leen. fi nga xam ne foofu la réew mi jëm li nga xam ne mooy programme gouvernement ñu jàpp ne tey li ñuy wax ci règlement intérieur bi nee nañ règlement intérieur bi dafa faux tey bu ñu fàtte ne règlement intérieur boobu noonu ñi député yeew yi moom la ki nga xam ne mooy l'ex premier ministre Amadou Ba ñëwoon. def ci déclaration politique générale au mois de décembre moom la ñu également sukkandiku woon pour def li nga xam ne mooy motion de censure bu ñu déposé woon bu ñu fàtte également tamit que ne la constitution moo nekk ci kaw règlement intérieur mooy constitution moo mag moo sut li ñuy wooyee règlement intérieur de l'Assemblée nationale wax nañ ko tamit ñu naan délai bi amul waaye dañuy fàtte rek jurisprudence boo xam ne yàggut ndax la conseil constitutionnel bu yàggul ci élection présidentielle yi bi coow amee meilleur délai bref délai dañu jàpp que ne que délai raisonnable mooy la meilleur délai kon le premier ministre waroon na ci quatre-vingt-dix jours yi mu ñoo def li nga xam ne mooy déclaration de politique générale na bu ñu fàtte également que ñi nga xam ne tey ñooy député Yewwi yi di suñuy collègue waroon toogal askanu Sénégal mais ñu préféré toogal seen premier ministre moo waral ñu jàpp ne ñoom ay député Ousmane Sonko la ñu du ñu député askanu Sénégal ndax mbubbu premier ministre lañu sol taxawal ko di ko wax ne kon na bañ a def li nga xam ne mooy déclaration bi te bu ñu fàttali la 5 juin bii passé kii di premier ministre Ousmane Sonko moo wax ne. mu ngi préparé déclaration politique général bi ci ni mu gën a gaawee ñëw jàkkaarloog askan mu Sénégal rawatina jaar ci député yi député Sonko yi muy waa Yewwi député Yewwi yi dañu jàpp ne avant de seen point de presse bii waxtaan ñu woon ak ki nga xam ne tey moo leen yónni woon te bi mu génnee wax xam nañ fan la commande bi jógee kon commande lañu amoon ñëw wax commande boobu noonu ki ñu ko doon defal tey moo génn ñëwaat ci léegi nag sénégalais yi ñoom ñooy témoin yi gis nañu ne boobu ba tey ñu député Benno Bokk Yaakaar ñu ngi taxawee taxaw républicain ñu ngi taxaw pour liggéey bi wëy fonctionnement bi wëy ci ni mu gën a yembee ndax ñun kat dañoo jox cër loolu askanu Sénégal ñu jàppoon ne ñoom it jox nañ cër askanu Sénégal waaye manqué respect askanu ci Sénégal mépriser ñàkk a nawloo askanu Sénégal moo waral tey sortie bii nga xam ne tey dégg nañ ko léegi premier ministre def ko mooy que ñun ñi ngi xam ne tey askan moo ñu fi teg bu ñuy wegul rek mooy wegul également peuple sénégalais bi. ñu rappeler également au premier ministre son obligation mooy mu respecter li nga xam ne moom na ko constitution bi jox mooy mu ñëw jàkkaarloog député yi wax ñu fan la jëm. ban yoon lañ koy awalee si askanu Séné pour askanu Sénégal tey jii dañu jàpp ne le premier ministre dafa am loo xam ne moom ñemewu ko moo la confrontation te du la première fois nag ndax yàgg na ñëw assemblée nationale wax la muy wax wane ginnaaw dem xëy na jaar-jaar pour pour politique am waaye na na am na courage waaye wan na wane nañu également que ne courage am bi yemul ci yeggul ci confrontation courage bi mu am yeggul ci contrat débat contradictoire te loolu yaakaar nañu ne moo waral mi ne dafay oote ay ay sénégalais ay universitaires ay société civile waxtaan ak ñoom dem parce que foofu da am confrontation foofu da am contradiction léegi nag ñun dañuy wax ki nga xam ne mooy la président de l'Assemblée nationale muy Amadou Mame Diop que nu mu gën a gaawee na indi leeral ci situation bi nga xam ne moo am moom ak le pouvoir exécutif afin que ñu mën a def daa nu mu gën a gaawee li nga xam ne mooy déclaration de politique général ñu wax tamit que daal daañu utiliser bépp jumtukaay bu légal bu constitutionnel ba nga xam ne tey jii li nga xam ne moom la ñu oo muy défiance ñu fekk ko ci défiance boobu noonu ñu wax tamit que ne fi mu nekk nii le président du groupe parlementaire Abdou Mbow junj na ko dañoo enclenché benn processus liggéey ci loo xam ne tey. article li nga xam ne moo doon tax kii di président de la république mu a disub assemblée nationale du amati ñu liggéey tamit ba nga xam ne tey li nga xam ne moom ci motion de censure tamit du amati kon loolu la ñuy liggéey fi mu nekk nii ba nga xam ne assemblée bii ñun groupe benn Bokk Yaakaar bi groupe majoritaire ñu ciy liggéey out po indi proposition loi boo xam ne tey président de la république du mën a ti naxasaayal assemblée bii parce que nag li ñu gis ñi ñii doxalee doxalu woyu lañu indi te yaakaar naa doxayu woyu dox dox taxawaayu woyu bu ko nit indee ci senegal gii dina jaaxal waa Sénégal kon sénégalais yi ñuy seetaan xam nañ bu baax a baax a baax que ñun groupe Benno Bokk Yaakaar ñu ngi ci position républicaine bi nga xam ne moom la amoon mais lépp lu ñu yoon may daañu si taxaw liggéey ko ba mu sotti incha allah rabbi voilà euh,